Baali Muntaxa Mbàkke muy nag ñëw boo xam ni euh, lu ñu war la loo xamante ni du tey lañ ko njëkk a def aussi mais di wax rek ni doon na loo xamante ni euh, mënuñu ñëw Touba def fi ziar bii ñu fi def tey di waajal màggal gi te jaaruñu fi seetsi ko donc euh, tànk yoo xamante ni tànku ziar la. tànku dox jàmm waaye tànku feddali kóllëre ak tànku ñëw jàpp ci li nga xamante ni muy bis bi ñu bés bu rëy bii ñu dëkkmal muy bésu màggal sëriñ Touba. Euh, muy loo xam ne benn bés la ci bés yi muy loo xam ne képp kuy senegale yaa ko moom kon tey jii bu ñu yàlla déggee dénkee ndomb tànk ñu ko daan def avant loolu di am tey dafay jaadu ñu ñëw feddali kóllëre googu. yàlla dénk ñu nag ah li ñuy woowe ministère de la famille et des solidarité te ku wax famille wax lu bari muy lu jëm ci protection sociale en règle générale mais ku wax famille wax lépp lu jëm ci euh, équité maanaam ñëpp tolloo te ñun Sénégal boobu la ñu bëgg li ku nekk moom ñu jox la ko bu ñuy wax famille tamit muy équité territoriale waaye ci biir loolu dañuy wax solidarité ñu ànd ak directrice général bi nga xamante ni moom la ñu dénk développement communautaire ci biir développement communautaire lépp lu jëm ci wàllu protection tamit mi ngi ci muy ñaari euh, euh, département yoo xam ni dama naan rek ñaari ministère la muy loo xam ne nag foog naa ni sunu borom bu ñu ko dénkee daf ñu cee fekkoon dafa xam ni sunu yëf la te yàgg nañ cee liggéey boobu amaguñu ndomba tànk kon tey jii bu ñu ko amee euh, war nañ cee mën a wane sunu bopp bu baax a baax a baax bu ñu ñëwee ci soxna Baali nag d'abord lu bari waral na ko waaye li gën a tax dafay une figure emblématique fii ci biir Touba dafay koo xam ne waaw kenn mënu koo tëpp ñu ñëw nag ak euh, yéene boo xam ne. ci màggal gii ñu jëm lu bees lañ fi bëgg indi lu bees loolu mooy fexe ba waatu Touba xam lan mooy ministère de la famille et des solidarités ministère de la famille bi liñ ci bëgg mooy programme yi ci nekk yëpp muy PUMA muy PUDC muy Promoville muy CNCSU muy lépp loo xamante ne nii euh, nekk na lu jëm ci ndimbal commissaria à la sécurité alimentaire nekk fi mu ngi nii ñu àndal daanaka ndimbali ñu indi yëpp tey ci Touba dafa ñëw ñu yàpp ay camion ba mu fees dell ak ceeb ñu ànd di ko séddale ci biir dëkk bi kon loolu tey dañoo bëgg askan wi xam ne defuñu ko ngir dañu ñëw si suñu coobarey bopp waaye dañu ñoo dénk ministère ministère boo xam ne lépp lu jëm ci xiif lépp lu jëm ci pauvreté lépp lu jëm ci ñàkk mais lépp lu jëm ci protection de l'enfance muy maanaam taxawaayu ndimbalu xale yi mais lépp loo xam ni jëm na ci néew ju doole yi ñu war leen a dimbali ministère boobu dañ ko ko dénk ba xam ngeen ni lu bëree bëri président de la république dénk nañu ko ci mbirum autonomisation des femmes mu wax ñu ci nag lu am solo ma maanaam le ministre dama bëgg lu mu gën a gaaw ngeen tegal ma mécanisme pour que ma mën a taxawu jigéen ñi parce que jigéenu Sénégal sonn nañu mécanisme boo xam ne nag c'est pour vraiment une autonomisation économique mais durable maanaam dañoo bëgg na génn ci euh, euh, di dimbali rek sax ci dañoo bëgg ndimbal loo xam ne dañu bëgg jigéen ñëpp jóge ci ñàkk parce que loolu suñ ko amee rek kër yi naat ndax jigéen bu mënee dafay feeñ ci kër gi day feeñ ci borom këram day feeñ ci njabootam loolu nag nekk loo xam ne fi mu ne dañ koo laxasaayoo fas yéene cee liggéey te tàmbali nañu mais di wax rek ni euh, chapiteau boobu ñu bëgg a installé fii ci biir màggal gi dina tax ba ñu xam ñun lan la ñuy liggéey ngir protéger xale yi te foog naa ni protection de l'enfance fii ci biir Touba sujet bu sensible la ndax xale yi ñu ngi ci daara yi di jàng ñu war leen a dimbali xale yi ñu ngi xëy na yenn saa yi nekk ci euh, euh, euh, seuil de précarité boo xam ne dañu leen dañuy soxla ñu taxaw leen dimbali leen ñu am centre boo xam ne dañ ko tuddee gindi gindi moomu dañ cee bëgg gindi xale yi Sénégal ñi nga xam ne dañ ci soxla ndimbal ñu fexe ba buñ leen récupérer ñu jàngal leen réinsérer leen wan leen yoon woo xam ne dinañ ci mën a jàpp naam donte naam danañu continuer di jàng waaye danañu am leneen lu ñu jàpp pour mën a bañ a nekk ci ñàkk parce que ñàkk mooy indi lu nekk loolu nag nekk na lu bees lu ñu bëgg indi ci màggal gi lépp lu Puma di def lépp lu Promoville di def tabax tali yi pavage yi lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek pour jëmale askan wi ci kanam incha allah danañ ko fas yéene won askan wi ak pèlerins yi nga xam ne dinañu ñëw ci màggal gi. loolu nag communication lañ koy tuddee dañoo bëgg sénégalais yi xam li ñu moom ndax du ñu dembali kenn ndax daf ñoo neex rek mais dañ koy def parce que daf ñu war nit dina am loo xam ne moo ko moom. mais yenn saay du xam fan lay jaar ba jot ci donc solidarité googu la ñu bëgg woon Sénégalais yi nan la ak fan lañ koy jaare ba mu yegg fi mu war a yegg donc di amaat mbégte lool lool lool soxna si tey moom sama mbégte mënu ma koo mënu koo natt wax dëgg neex yàlla am nañu mbégte lool lool lool ndax ñun euh, li ñu bëgg rek mooy sunu diine gi ñu am mu jëm ci kanam te màggalug Tuuba foog naa ni sénégalais yëpp koy célébrer. sunu président moo ñu fi yabal nag muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye sunu premier ministre yabal ñu fi di Ousmane Sonko ak gouvernement du Sénégal yëpp sama naataangoo yaa ngi fii ci biir euh, Touba ci suba ba tey di liggéey. dégg naa fi sama naatango El Hadj Malick Ndiaye dénk dégg naa fi sama sama doomu baay ah Cheikh Tidiane Dieye ndax moom ci mbirum hydraulique beeg inondation yi lu ne taxawee na ko ba d'ailleurs sax dañu waroon ànd dem seeti ji waa Touba ca kanam ngir ñi nga xam ne dañ leen a war a reloger ndax ndox mi dafa nangu seen i seen kër seeni i dëkkuwaay kon nag loolu nekk na loo xam ne lu ñu ñor la lu ñu ñoŋal la président de la république jox ñu ci ay instructions yu yu leer instructions yu forte pour que ñu taxaw ci ba nga xamante ni ñi kenn ci ñoom du tumuranke kenn ci ñoom du jaaxle kon nag alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi ñaan yàlla jëm ci màggal gu yaatoo yaatoo yaatu ñu ngi ñaan yàlla màggal gi ñëpp gis ci seen bopp te nu mu daan amee nit na gën a bëree nit noonu encore muy màggal goo xam ne lépp lu fi nit ñaan nit yàlla may ko ko soxna si ñuy sàkku ñaan ci yow di la ñaan ngir euh, euh, euh, jëmmi Serigne Touba ah yàlla defal ñu sunu gouvernement bu bees bii nga xam ne dañoo sasoo defaraat Sénégal dañoo sasoo bëgg indi Sénégal bu bees boo xam ne ku ci nekk la nga moom da nga ko jot Sénégal boo xam ne dootuñu waxati ndóol coon Sénégal boo xam ne dootuñu waxati injustice ñu ngi ciy sàkku ñaan kàttan ak wér mais surtout askan wi yëpp ànd ak ñun jàppale ñu ñu mën ko liggéey te wóolu nañ la ci doyloo nañ la ci yàlla nañu yàlla defal jàmm yow it ñu lay ñaanal yàlla mu bàyyi la fi yàlla defal la jàmm euh, kontaan nañu lool benn yi moom wax fa dëgg neex yàlla waaw mat na sëkk bari na lool tey moom ah ñi sant gay xam naa ni duñ ma bàyyee dara waaye wax dëgg neex yàlla kontaan nañ ci taxawaay bi ñu ànd ceeg ñi ñu nekkal fii tamit ci Touba Euh, soxna Fatma Mbodj honorable député Fatma Mbodj mi ngi fi ah, ñoom Khady saw waa Mbàkke yi kenn desul wax fa dëgg neex yàlla sëñ Cheikh Thioro moom dafa am empêchement ndax ma nga assemblée tey seen plénière yi euh, Biram Diouf aussi kenn manqué wul wax fa dëgg neex yàlla tey daal soxna si kontaan naa parce que tey moom waaw euh, ñëpp mat nañu ñu ñëw seet si la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax waaw ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ah kontaan lool nag fekk fi sama rakk ji itam ah soxna lii que maa ngi am mbégte lool tey fekk ko fi fekk fi vraiment koo xam ni ku ku sori ci man la waaw jërëjëf waay merci beaucoup. ñu yëkkati kàddu yu bàyyi ko ci soxna bali mun taxa bintu Serigne son yi bu xaadim rasul jëm ci délégation bu am solo bii mu jàkkaar lool muy madame la ministre soxna Maymuna Jéey ginnaaw naa nu ko nuyoo ndokkeel ko ci turu soxna si di ko dalal ak jàmm nan ko marxaban bikum soyez les bienvenus di nuyu bu baax gouverneur yi nga àndal ak préfet bi ak mbooleem waa administration bi fi daje bi nga fekk fi nag rakki boppam ji toog di soxna mbeen moom sëriñ Abdou Khadir Mbacke di xaadimu rasul mi ngi nii toog di feggoog moom ni nga ko waxee léegi ci kàddu yi nga ne fekk nga fi sa rakki bopp waaye it muy doom ci kër gi muy maître lii ka ba muy toog nga xam ni bi nga ñëwee moola dalal loolu firi na lu bari di siyaare bu baax. mbooleem ñi nga àndal ñëpp ndax ñi nga àndal ñëpp ñi ci ëpp kenn ku ci ne ci ñoom mën na laa dalal ci kër gi waaye it mën na laa bernde mën na laa yeewi député yi nga àndal buñ ci tuddee Cheikh Aliou Bey di député maire moom ñu nuyu ko siyaare ko Serigne Maxtaar mii nga xam ni seen baayam léppam day fii di kër Serigne Basirou kon moom Daaru Minam ji la dëkk moom it mën na laa dalal di nuyu bu baax soxna Marème Soda mii nga xam ni moom it day doom ci soxna si di xaritam bi mu njëkkee ñëw ci kër gi soxna si ne ma demal nga jëli député bi bi ma ñëwee ne ko a ah, ah, ah, na député bi accès gu ma mu ne ma man la ndax booba dafa dafa gën a doon xale nga xam ni turam léegi laay door a xam ni Marème Soda la député xale laa enregistré woon ci numéro bi. kon moom ñoo ngi koy ndokkeel ba yàlla dogal tey mu njiitewaat ci ci biir direction yi nga xam ni moom ngeen sekk nuyu soxna Kiné Thioune mii bu baax moom ne nga fekk ko fi muy kenn ci soxna si kaddu yi nag kaddu yi cant rek la ak ngërëm Serigne Mamor Mbacke ngi nii agsi na mu sëriñ moodu Bousso Dieng di ci yilif tuubaa ca kanam di boromi taxawaay di jàmbaar ngeen sekk lu bari ci léggéey moom it mi ngi nii agsi na soxna Bali wax ni nag madame la ministre na nga xam ne moom ni xolam sedd na te it bég na lool ndax nee naa nag délégation bu ne neex na ko waaye lépp luy jàppale jigéen ak di taxawu jigéen loola ku ca ne ku ne rek soxna Bali du la yemale kenn la ca jiitu mooy laata ngaa agsi say jëw yu rafet dala fee xaar ci buntu kër gi ndax ñoom ñii fi ne la seere ci yow te booba ak seegoo bi nga ñëwee gis na ci kawe njort dafa am lu arab naan ba saasatul wa ci muy xar kanam nit boo yàggee jaxasoo nit boo xoolee xar kanamam rek da nga xam ko mu doon nee na gis na ni ku baax nga nit ku yiw nga te nit ku tedd nga liggéey bi nga xam ni nag moom la président ba Bassirou ay fay yëkkati ko teg ko sa loxo nee na mi ngi ñaan yan bi yàlla na diis gann waaye nag yàlla na ko yàlla téeñul ba nga attan ko ba yóbbu ko fa nga bëgg a àggale ñoom ñii ñëpp ak njabootam lañu ndax sëñ Matar Moustapha Mbacke Lo mii mu àndal moom mii jëwriñ la ci biir kër soxna Bali mboolem loo xam ne fondation soxna Bali da koy def ci dimbali nit ñi ci ay action sociale alaaji Cheikh Diop kooku secrétaire bi lu jëm ci Touba ci loxom la koy teg moom mii mooy dem ci prison yi di leen yóbbul seenu dund di yóbbu xari tabaski di yóbbu nag yi di séddale enveloppe yi muy doomi Moustapha Cissé waaye di nit ko am jom ndoon nit koo xam ni nitu détermination la kon moom it doomi soxna si la fekk nga ko fi ñoom nag njabootu sëñ tubaa gi loo leen mën a dikkal neex na leen bis bu ne baax na waaye boo leen dikkalee ci jamonoy màggal nag da leen di dàqal ndax ñoom teraanga ji ñu am su màggal gi amul woon ñoom duñ ko am ndax sëñ tubaa dafa ni amarani rabbi bi an usarrixa ne man yàlla sa borom bi am na nii malazun wa mafsuxu ba noppi daan ni nag képp koo xam ni bëgg nga yegg ci yàlla ñëwal ma àggale la sëñ tubaa nee na nag bii ma ñëpp wiisee eh, te te man mi moom sàkk mi ma xam ne li ma leen yéene nekkul ci sàkk mi moo tax ma takk sama liggéey sama ndigg dem liggéey nee na bi ma liggéeyee nag ba ñibbisi ci laa duy sàkk ba mu fees ba rembe tuuru moo waral ku la nuyu jox la benn loxo boo ko nee sant wa mun la mbàkke beneen loxo bi day ñëw par force loolu nag moom la sëriñ bi liggéey te te defal leen ko ba noppi ber leen ne leen danaa leen defal lépp lu buur di lekk yéen a koy dàqale di ko yéen a koy gën a rafet mbubb te kuy rey buur bu leen jubee gi leen kon nag ñoom ki leen defal loolu te moom moo taxaw ne amul lu dul bis bii ne bu dikkatee na ngeen ma sant yàlla kon ma madame la ministre bis boo mën a ñëw nag nee na bis bi yo ko dàkkal parce que dañ ne l'engagement de Bamba pour notre cause demeure pour nu de la plus noble des choses soyons honnêtes car l'honnêteté est certes synonyme de pureté ñoom ñii loolu rek a leen war mooy delloo sëñ Tuubaa njukkal delloo ko li mu moom ak di ko sant te madame la ministre ne soxna si bég na kaddu yi nga yëkkati bokkoon na ci ay mbébétam kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko dafa bokk ci ay mbébétu soxna si mooy bi nga waxee ba ni ñàkk lañ bëgg mu jeex ci jigéen ñi ndax bu jeexee rek fépp dox loolu daa bokk ci mbébétam Moustapha mi gis na tabaski dañ daan jël lu bologu cinquante millions di ko jox nit ñi ñuy rang ci kër gi soxna si ni sanab bee caméra bi koy jël sax bu yàggee yàlla dootu ci am mujj gi ñun ñi kenn ku ci ne da jël lu mat cent cent enveloppe kii jaar ñii kii jaar ñii ñu dem ba Touba fas fas sancaan yam nga xam ne da ngay da ngay fëgg borom kër deux heures du matin mu ubbi nga ne ko soxna Baali mun taxaale ko jox daal di dem nga xam ne xamu ko moom it xamu ko muy teral nit koo xamul bu ko defee bu ma ñibbisee ne ko bàjjan day fëgg naa koo xam ne këram nga amul miir daanaka eh, eh, ni sàkket bi matul loola da cay fanaanee jooy kon yow boo ñëwee taxaw ne ko bëgg nga ñàkk gi jeex ba jigéen ñi kenn ku ci ne ne ci dara ba bu làmbee ginnaaw mën a daj bu bëggee faj soxlaam faj ko fekk nga soxna Bally ci ak bëggam nee na lu ko waaye wax ci màggal gi neex na lu fi dégg neex na waaye yow sa sa mbébét yii moo ko dàqal fop kon mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm Biram Juuf nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ci njaboot gi la ngeen ànd ak moom ñëw waaye it fii la dëkk ci kër gi doon fi borom mi taxawaay di fi lépp moom it mi ngi la koy seereel am na ci kook nag li tax ma mujjee ko mooy wax ji ci moom buñ ko xasee ba tudd dañ ko fay daal di yemale ab taalibe bu amee judd bu baax bokk fi mu war a juddoo ba noppi jaayante loolu mooy jaayante jaayante noobu la koy def mooy dangay am deret bu baax am wërsëg ba nga xam ne yow li nga bëgg lépp am nga ko boo ñëwee ci ab sëriñ raam ne ko bëggatuma dara jox naa la sa bopp jaayante googu dafay dëgg te gànkal ma ma duma xuraja bi muy ñëw ci sëriñ Touba fekk na garaati dammel yëpp a ci moom waaye dafa tekki laxasaay yëpp tekki garaat yi dagg ko ne ko li baax tey ëllëg mi ngi sa loxo yaa ko moom jox naa la sama bopp àddina ak alaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi sëñ Tuubaa jël doomam joxoñ ko Cheikh Modou Moustapha muy soxna Fatma mu taaloo ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu li ma ci jublu mooy Cheikh Tako Diop mii day nit ku baax di as gor ñun doomi soxna Baali yëpp ñun nangu nanu mu doon sunu mag te te loolu it doonul ku jóg ñun nangu nga doon sunu mag mbooleem biir kër sëriñ bi. boo fa demee ñëpp dañ koo jox cër ñëpp bëgg ko li ko may ci sëñ Muntaxa may ko ci soxna si loolu ay qualité la ak jikkoom ak i taxawaayam soxna Baali Muntaxa nee na gis naa ñëpp xam naa ñëpp waaye taxul may wax ak ñëpp waaye seex mii waxtandoom la as gor a ngi nii nit ku baax a nii nit ku dëggal te dëggu ci diggam ak sëriñ bi waaw kon nag boo buñ toogee dees na ko seere ba ñëpp dégg ko lii nga xam ni daal moom la le président dénk ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi ak dooley bis bi ak barke Cheikh Mountakha ma nga jóge ak daraje soxna jaara mi kii di liggéeyal yàlla na ko yóbbu fu kawe njort ba mu àgg fu ko kenn fooge wuloon lépp lu dëngu ci kàddu yi nag nañ xam ni ci ki ko doon wax la waaye fa mu bàyyi koo mate na fa làmmiñ wi daa desee set te damaa xaw a ragal mbooloo waaye kon eh, ni wax ji dana gën a leer ni wasalaamaaleykum